sunnata taxawu ak jàppale ñi nga xam ne dañoo amee jafe-jafe ci mbënd mi fii ci Touba Mbacké nit ñaa ngi bàyyeekoo fu ne di ñëw di indi seenu jàppale taalibey murit yi nga xam ne ñoo nekkee ci diwaanu Kaolack ci njiital El Hadji seeni Seck mi nga xam ne moo fa nekkal xalif général des mourides ànd koog Serigne Babacar Mbacke mu kabaro ak mbooleem kilifa yi ñoo yabaloon Serigne Moustapha Mbacke Abbas mu àndoon nag yeneen jëwrin ngir ñu ñëw indi li nga xam ne moom la taalibé yi nga xam ne ñoo nekkee ci Kaolack jàppale ñii loxu ci mbënn mi ñoom nag jébbal nañu kuréel gi nga xam ne moom moo di junnatun liman nazamaho lu toll ci fukki million ci suñu koppar yu tek teg fanweeri junni ànd ak limub yére yu takku ak ay dàll loolu nag ñu ngi ko indi woon ci samedi gi dëppoo nag fukki fan ak juróom-ñeent ci weer octobre atum 2024 fii ci Touba Mbacké waaye daal ci gàttal Kaolack gépp a ngi soxna yaa nga nële tuut tànk yaa ngi fii góor yàlla yaa ngi fi ànd nañoo kawlax gépp gépp gépp gépp gépp dikk ci woote bi te di leen xamal ne liñ fi àndi tuuti na ba mënuñ koo tudd waaye ndigal may nañu ñu tudd ko ndax sëñ bi biñ ko ko joxee waxoon nañu ne suñu yegsee ci si yéen nañ leen ko leeral waaye tuut gëm tuut ca ñun taxoon nañu def ci àndaale woon nañ fukki million ak fanweeri junni wàllu yéere nag. andi nañ ci 2000 pièces yu góor yu jigéen yu mag ak yu ndaw waaye sëñ bi nag fii kenn du fi wax qualité waaye am na ci yére yoo xamante ne ku ko gis xam ne fa mu jógee yëg fa mu jógee ñooñu yëg nañ ko moo tax fa mu jëm lañ ko yëg kon ngir bañ guddal daal Kaolack a ngi dikk nañ fi di leen ndokkeel di leen jaajëfal di leen siyaare di leen massawu ci coono yi di ñaan itam liggéey bii ñu fi andi niñ koy xepp xeeb xeeb ngeen nangul ñu ko. waa kaw Kaolack nag nee ñu li nga xam ne moom lañu indi xeeb nañu ko lool waaye nag ab tàmbali rek la. sëñ Babacar nag wax na ne alaaji seeni nee na ko dañoo ñëw indi liñ fi andi waaye suñ demee itam ñu ngi tàmbali dem rootiwaat rek feek sëñ bi daal newul leen toog leen ñu ngi ci ànd ak yéen ci guddi yi ak ci bëccëg yi ngir bañ a guddal. Bousso ñu ngi sant ñëpp daal wax dëgg yàlla kawlax képp daal wuy si nañ kuréel gi nga xam ne moom moo di junnatun liman nazamoo te Serigne Mountakha Mbacké teg liggéeyub taxawu ñi nga xam ne dañoo loru ci mbënn mi fii ci Touba Mbacké ci seen loxo ñoom nag sant nañ bu baax a baax waa Kaolack ci seen jëf ju ji nga xam ne jëf nañ ko lépp ñu teg ko ci loxoy Serigne Moustapha Mbacké Abbas mi nga xam ne moom moo leen fi teewaloon ànd kook mboolem jëwrin yi euh, nuyoo bi nag ñu ngi cooy teg ci loxol sëriñ Babacar moom nga xam ne moom ngeen àndaloon mu jiite délégation bi mu jottali ñu ko sëriñ Cheikh tegal ñu ko ci loxob alaaj Sini waaye nag ci turu sëriñ Babacar ba moom ñu ngi ciy nuyu sunu mbokk mi di sëriñ Moustapha moom sëriñ Abbas ak rakam yi mu àndal di nuyu alaaji Ndonga Caam bu ñu ko tuddee tudd nañ mboolem jàngkati xaside yi nga xam ne ñoo nekk ci Kaolack yëpp. di yóbbante nuyu itam ci alaaji Serigne Diop ma nga xam ne mooy imam bi Serigne Basirou Lo Cheikh Serigne Cheikh Basirou Lo ak mbooleem kilifa yi fa nekk di nuyu Serigne Ndaw mi nga xam ne moo doon jot léegi xam naa ñàkk añ gi feeñagu ci feeñul ci waxtu wax ji leer na lool dara rafet Kaolack nag dañoo yàgg yoonu Serigne Touba yi naka jekk ba àdduna di jafe mbir yi di jafe it moom loxoom mos a jóg ci liggéeyub Serigne Touba. liñ ci fekkee wut it mag ñi nettali nañ ñu ko jamono ñi liggéey jumaa ji daayira yi daan jóge Kawlax bu daan ñëw ñëpp dañ koy seetaan Pastef boobee ñu amoon nag mag ñi ko fa jëmbatoon dafa mel ne bu mag ñee demee it bàyyi nañ fa Pastef ba yéen a ngi ciy dox doxin wu rafet taxawaay yi ngeen di am ci yoon wi sax waxtu yoon wi soxlaa ñëpp dañ ciy teg seen bët euh, moo tax nag lépp lu baax lu mën a doon. su ngeen ko gisagut it dafa agseegut waaye mi ngi coon wi di ñëw ndax ci biir liggéeyal Serigne Touba ci lee lu baax lépp nekk te Serigne Touba laa doon liggéeyal ba samay moroom raw ma nopp mësu koo dégg bët mësu koo gis te nopp du ko dégg bët du ko gis kon nag fii ngeen nekk rek foofu mooy mbir ma sax ci liggéeyal sëriñ Touba rek àdduna nag dadul kërug pay xéewal bari na lool ku ne naan li ma Serigne Touba faye waaye Serigne Touba kenn ndab la rek lu ñu duy moo tuuru bay ragalaat mën ngeen a di indi seenu jàppale jëm ci ñi nga xam ne dañoo loru ci mbënd mi ci diwaanub Touba ndax liggéey bi mi ngi dox bu baax a baax waaye des na lu bëree bari